bon ah, nag ñu déglu Baba Maal tamit mu yëkkati ay kaddu bu mu egsee moom ak Youssou Ndour ñu saafonte ah, laata muy dugg ci biir bon nag Baba Maal tey yan kaddu nga ci wax ak mbégte affaire bi ba nga koy yëgee ban impression la la def. ñu bëri woon nañ ma ci suba mais mënu ma woon a wax parce que li ma lii. wàccal na seen micro yi tuuti waa s'il vous plaît wàccal na seen loxo. ni mu toll. parce que bi ma koy xam mooy bi ma jógee Saint-Louis ñëw Dakar.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 kon ni musique du rek entretenir les gens c' est quelque chose boo xam ne danga war a participer éduquer sa population. éduquer la jeunesse. en tout cas sur ce plan là je vraiment Thione Seck zéro faute. Euh, yéen ñaar kan ngeen gëj a déggante ci wàllu kaddu yéen ñaar yow ka matul matul weer. Mhm. ndax bi ma bi may dem Podor juste parce que yàggul bi ma jógee Podor la ma woo par le biais de Diodj sama technicien. Mhm. mu ne ma gis nga li ma initié damay invité ay personnalité de la culture di waxtaan ak ñoom. ci musique sénégalaise kañ ngay ñëw. ma ne ko non non du ma ñëw parce que yow da nga may dugal ci ay waxtaan yoo xam ne bëgguma ci dugg. maa ngi dem Podor dama am réunion mu ne xamoon naa doo ñëw boobu laa gëj a waxal. ndeysaan. ah bon nag kàddu yooyu Abat Mal la jox ñu ko bon nag gis ni dégg na ko lañ ko nag rek ci kàddu yooyu Abat Mal moom moo ko doon témoin ci